waa bi si njëkk mooy xam nga dañu nekk aussi ci li ñuy wax commune commune bi aussi dafa am un cadre légal mu am une entité maanaam la mairie avec le maire donc le 8 juin 2018 mu amoon benn délibération boo xamante ni conseil municipal bi ñoo ko jagleel maire pour mu ut promoteur bu war a mën a ñëw def fi pose gazon synthétique n'est-ce pas donc ça ça date du 8 8 8 8 juin 2018 bi ñu jugee ci loolu aussi le maire ñun en tant que collaborateur ak ñi nga xamante ni peut-être parce que suñu nee projet dafa am li ñuy wax légalité ak légitimité légalité bi mooy joxe jox nañ ñu pour ñu euh, jox nañu maire le plein pouvoir pour ñu lal gazon synthétique mais légitimité bi mooy la population est-ce que projet bi arrangé na leen donc dem na vers la population parce que am na si ñoo xamante ni tey c'est de grands dirigeants parce que suñu nee dirigeant terrain Jaraaf dañuy xool ñan ñoo koy jariñoo booy seet ñi ci njëkk tey ASC lañ la wax la ñuy wax donc les associations sportives et culturelles dañuy wax tamit les écoles de football dañuy wax tamit ñi nga xamante ni dañuy jàng ci école bi di fi def EPS dañuy wax aussi l'emblématique Jaraaf donc booy seet quatre entités yooyu yëpp ci contrat bi nga xamante ni moom le maire signé ak le promoteur privé ñooñu ñëpp dañu am accès euh, gratuit par rapport ak utilisation wu terrain bi maintenant nag collectif bi ngay wax man personnellement Ngaraaf dajaloo nañ waxtaan ñu génneel leen le contrat en tant que parce que le contrat aussi comme li ñuy wax rek c'est à titre précaire et révocable maanaam li ñu séq ak moom su ko jaaralee si yoon dañuy continuer liggéey ak moom su ko jaaralewul si yoon tamit terrain bi jaayuñu ko mayewuñu ko donc suñu demee ba waa Médina gis ne peut-être liñ ko loué ak liñ ci doon euh, séentu amu ci mais dañ ñu koy delloo suñu yëf la n'est-ce pas aussi sànq maa ngi koy wax dans le cadre de la légitimité ñun ñi nga xamante ni ñooy utiliser terrain Jaraaf man wax naa ko léegi je suis un dirigeant du mouvement nawetaan terrain Jaraaf dem na ba mënatuñ ko utiliser un mois yu mat ci biir nawetaan boo joué boo fi entraîné ñaari match mu taw fees ndox mi dootul dem ngay dem di fay ay dem di fay ay Dakar Sacré-Cœur et autres n'est-ce pas donc boo amee ñu defaral la lu mel nii nga ñëw fi tey mën fi épanouir en tant que entité sportive mais aussi en tant que jeune jeune bi jeunes yi nga xamante ni tey ñun ñëpp ay jeunes lañ gars yi dañuy cotiser cinq 500 pour am benn 20 000 francs wala benn 50 000 dem euh, euh, jouer ji Dakar Sacré-Cœur yow nga am ko à disposition à ta portée da ngay dox ñëw dëgg la nag ni. comme li ñuy wax daanu dajul fépp am na ñoo xam ne dañ naan la y a des yoo xam ne amuñu les moyens pour mën a jouer ci fii ou des trucs du genre mais aussi moyen dañ koy ñi ko xam dem na ba ay étrangers entre guillemets ñooy ñoo koy utiliser le matin parce que les jeunes ñi nga xamante ni ñoo ko soxla peut-être dootuñu fi am accès parce que genn wàllu terrain bi day taa mu doon un problème pour ñun dirigeants mu doon aussi un problème pour les Médinois yi nga xamante ni dañ fi bëgg soxla pour mën a def seen euh, tàggat yaram donc je pense que ni c'est un projet porteur a ASC yi nga xamante ni ñoo nekk Médina les onze ASC de la Médina c'est-à-dire képp ku nekk Médina ci biir contrat bi dañ la spécifier ne doo fay boo koy utiliser doo fay nag ASC aussi nawetaan dafa am périodicité maanaam le 15 juin la nawetaan di commencer ba yow sa équipe fi mu yem ci phase zonale ou départementale ou nationale n'est-ce pas kon yow période boobu noonu nga xam ne da nga soxla terrain bi pour entraîner yow en tant que en tant que entité sportive kooku da ngay am gratuité d'accès maintenant nag gratuité boobu dañ koy organiser parce que mënuñu ñëw rek Ngaraaf par exemple wala Dames chaque jour ñëw ne daf fi am dix heures de temps na bu bi ñu defarul terrain bi euh, cinq ASC je pense ñoo ko doon utiliser y'avait Diapo y'avait ba y'avait Ngaraaf y'avait Diecko n'est-ce pas donc c'était quatre ASC yoo xam ne ñoo doon utiliser fii mais quatre ASC yooyu semaine bi cinq jours la ku si nekk benn benn benn jour nga amoon pour entraîner fi te si benn jour boobu noonu boo amul cadet le matin le soir benn 2 heures 3 heures de temps fi am donc tey bu ñu defaree fii defar def ci commodité yi ci war yëpp def fi éclairage def fi ba nga xamante ni tey war nañ suba ba ngoon ñu war fi mën a di entraîner wala dara mais mën na am sax heure yi yokk n'est-ce pas mu doon bénéfice su ñëpp dammes mi daan entraîner x wala kusum mi daan entraîner y ou autre xam ni yëfam mi ngi nii ñu organiser ko liggéey dafa laaj organisation donc bu ko organiser je pense que ni problème du am te organisation bi dafa njëkkee ci ñun mooy comme ni ma ko wax au niveau de nos ASC deuxièmement lu ñu la jox gratuitement nga si entraîner je pense que ni amoo loo ciy dépensé soo su la gënul jariñ sax yaakaar naa du am lu mu lay lu mu lay yàqal privatisation nit nag soo nekkee ci dëkk muy avancé dañuy wax da ngay nangu avancement da ngay nangu développement tey jii nii euh, tere yi ñu gis yëpp au niveau de Dakar même si Dakar sax manque de terrain et autres mais pour nga am fa accès dafa am lu ndaw looy débourser parce que tamit du loo xam ni tey teg fi gazon synthétique xaalis a koy def am na keneen ku ma mën a ñëw ne ma lu tax mairie bi jëlul xaalisam dugal ko defar ko pour delloo ko à la population dëgg mën na nekk mais tamit dafa am li ñuy wax PPP partenariat public privé c'est-à-dire dans une organisation parfois dem jëli nit mu ñëw tegal la dara mais équipe yu mag yi ay Real de Madrid et autres dañuy louer parfois seen terrain pour fa organisation la laaj c'est-à-dire organisation boobu nag comme je dis ñun en tant que médinois comme tu l'as dit que qu'on soit onze ou vingt ASC cest dire dafa laaj dafa laaj ñun privatisation boobu noonu dafa ñuy renvoyer à une organisation mooy tey dinañ xam ni lépp ñëpp ku ne da ciy am accès